asalaamaaleykum àdduna asalaamaaleykum Sénégal ziareti nañ leen béggee war maa jox ca nuyu kullukum di jël nag sama nuyoo di ko jox sama sëriñ muy Baye Abdou Karim ak samay ñaari waajur tey nag ñu ñëw si émission bi nga xamante ni mooy dund bi ma ñëw ànd se ki nga xamante ni mooy Iran borom àll bi ak sama ma xadi joxaana mi nga xamante ni macha allah mi sama wet du ma si weet di la ziare Iran. di la sant di la fay di la gërëm di nuyu waa àdduna bi di nuyu waa Pexxe TV. waa Khady Diokhané nuyu nañ la. maa ngi lay fay Sarata di am mbégte lool jàkkaarloog yow fii nga xamante ne mooy plateau mhm. émission Dundu. Euh, di kontaan bu baax ci jàkkaarloog euh, ñi nga xam ne ñu bàyyi xel fii ci Pexxe TV. waa gis nga xari jaxaane nu mu ko mu nuyoo ko nuyu nañ ñëpp bàyyiwuñu kenn tey nag dund bi lañ leen indil mais nee naa leen balaa émission dund bi di ñëw dafa am li nga xamante ne dafa xew ci biir Pexxe TV tey jii ku seen Iran seen saarata ku nekk xam na ne suy suivre Pexxe TV rek xàmmee nga leen ndax nee naa leen fu nekk saay-saay yaa ngi ku baax yaa ngi fi ñu bon yaa ngi fi mais ñiy jël sama photo ak photo Iran di ko yónnee ay nit naan ñoom ñooy Iran di si sëriñtu di wax ne ne ay dañooy fasloo ñooy def ay li nga xamante ne tey li nga xamante ne Iran moom lay dund ci biir àll bi ñooñu or que duñu Iran nee naa leen chaque jour rek nit ki waneel li nga mënee mais bul jël fi jaamu jël di ko jox ku soxla Iran soo demee Pexxe TV di nga ko fa fekk ku soxla numéro Iran soo demee Pexxe TV am na numéro yi nga xamante ne ñi ngi fay affiché soo leen woowee di nga am numéro Iran te di nga dox ba ci Iran ku la wootoo xamante ni liggéeyul Pexxe TV rek xamal na ne soo demee foofu rek ñàkk nga loolu laa leen loon teg foofu sama loxo daal di ñëw a jàkkaarloog Iran Iran tey émission dund bi lañ leen indi lool noonu yow ñun lay def noonu di jël say photo ak samay photo di ko envoyé di wax ñooy Iran yow lool bi nga ko déggee lu mu la def. ay reetaan. <laughs> lu la defee ay reetaan. lu may topp nday duñ def seen bopp naan ma waa Iran su nekk ci Iran. ah la de. mais tamit yaakaar naa ne jamono ji ku ñu nax rek yow la neex ndax affiché nañ fi ay numéro yi nga xamante ne ku soxla Iran soo wootee di nga ko jot te Pexxe TV yaakaar naa ne benn la fi du fi ñaar. du fi ñaar moom. te Iran tam benn la. du ñaar. waaw Sarata tamit benn la mu ngi du ñaar moog Iran ñooy ànd ak waa Pexxe TV. xadi joxaane loolu loo si wax sama mag ji waaw comme li sama baay doon wax naan rek ñi gàmm ak ñi raas déem du ñu benn mhm. xam naa ne ni rek dañuy jël euh, photo Iran sa photo mhm. di ko envoyé doomu aadama yi di wax ne ñoom la Iran waaye ni nga ko waxee rek yow leeral nga mhm. képp koo xamante ni yow yaa woo ñooñu da ngay woo sa Iran bopp Iran boo ko soxlaa Pexxe TV ngay dugg ay numéro ngi foofu yaakaar naa ne loolu moo a leer moo a leer kon dégg ngeen yéen ñi nga ne dañ leen di woo naan kii mooy Iran kii ay saar dañ leen ndax képp ko soxla Iran naa rek boo duggee biir Pexxe TV yaakaar naa ne di nga jot Iran kon yaakaar naa ne loolu leer na tey nag ñu ñëw si émission bi nga xamante ne mooy dund bi si biir pexe Iran tey lan mooy sa lan nga nar a may euh, li nga xamante ne mooy dund bi ak waxtaanee ko lan mooy sa thème si dund bi tey. njoganalu jaxatu ne giri kaa njoganalu mm-hmm. tey li laa indi garabu dambal li ma gars laaj moo bari moo tax li mooy dambal mais waaw bu ndaw bi la foo wow mais Iran Sénégal lañ nekk de lii mooy garabu dambal ku ko dégg nga xamante ni mun nañ ko juger côté bu nekk garab bi moo tudd loolu wala. garab yi su tuddee dambal. yoo nga bëgg ko wax beneen tur kooku wax du xam da ngay jaar si ni mu tudd rek lay koo wax dambal mu xam ne dambal la. ah waaye yéen dégg ngeen loolu xadi joxaane sama mag bi si wet bi gis nga tey Iran émission bi tey lu mu indi. nee na garabu dambal la indi lool loo si xam. waaw tur bi saarata doy na waar trop macha allah Iran sa tur bi yéeme na waaye man moom du ma def lu dul laaj ñi nga xamante ni seen xam-xam dafa màcc jëm ci garab ana tur boobu est-ce que am na ci biir garab yi est-ce que lii nga xamante ni moom la fa Iran wane. tur bi noonu la am du noonu loolu rek lay laaj képp koo xamante ni yaa ngi suivre Pexxe TV xam-xam boo ci am rek na nga commentaire incha allah dinaa la bàyyi xel. suñu jógee ci loolu tey ji ma ñëw jàkkaarloo sama mag bi nga xamante ni macha allah du dem bàyyi ko mi ci wet bi muy tey ci émission dund bi tey lan nga ñu indil. Sarata bég naa man itam du ma dem bàyyi la macha allah sama rakk ji nga xamante ni loxoom set na tubaar fakal la tey maa ngi la indil tuuma. tuuma. Mhm. waaw ah, loolu day na waa tuuma tey nga ñu nar indil. tey tuuma laa indil tey ci biir émission Dundu. ci Pexxe TV ah Iran dégg nga xadi joxaane ne tey tuuma la indi. moom gën a gaaw nag ak bon. baadu tuumaal nit rek ak a <laughs> ah, doy na waa tuumaal nit ki yoo xamante ni yëgul tinul moom dina doy waar mais Iran sànq ba léegi ñu ngi ñëw nañu wax si euh, li nga xamante ni tey thème bi nga ñu indil dañoo bëgg nga may ñu si lu nga xamante ni xóot na ndax ñu koy déglu ndax nee nga ñu li faj bëri na trop nga jox leen ñoom ñu dégg si li nga xamante ni mooy dambal bi nga yor dambal nag boo ko déggee dambal bareetul si àll bi fii mais dambal moom la ñuy wax moom la ñuy boo bokk boole tulukuuna mhm. ak karité mhm. jigéen ñi ñi amul ween dañ koy def seen suuf ween da may ween affaire bi soo ko defee sa suuf ween bi ak karité da lay may ween waaw ah loolu doy na waar de xali joxaane ah loolu doy na waar de ndax am nga suñu mbokku jigéen yi nga xamante ni. Uh-huh. macha allah dañuy sax def def ñuux di ñuux ay affaire uh-huh. pour euh, seen ween yi xaw a jóg. Uh-huh. xëy na yàlla noonu la leen bindee bëri la wuñu kon nag loolu am na solo buñ ko déggee ni ñuy njëkk a def mooy jël karité rek daal di jël ci garab gii nii ñu wax. bu ko defee ñi daal di koy def seen suuf yéen essayé rek ba xam bu fekkee yàlla def na mu dox parce que moom yàlla lu nekk def na ko ci mhm. li wax mën a nekk kon dégg ngeen suñu mbokk jigéen yi jógee si question ween bi noonu loo nga xamante ne lañ koy boole pour nga am ween ak tullu kunda léegi suñu jógee si loolu loolu kase lay faj wala ak leen am na ñoo xamante nii tamit nee nañ day yokk ay bagage boo ko defee sa bagage day yokk dambal moo tax xam naa est-ce que loolu taxul tax ñu tudd ko dambal ay dambal bagage ay bagage day yokk sexe góor waaw kay ah mhm. ok day yokk sexe góor comme góor bi nga xamante ne sexe am jugul waaw dafa ndaw waaw moom lañ koy moom la ñuy wax lii lañ koy defaree lii dambal ah, moom la ñuy jël dambal bi ak lu comme ni ñu koy def si ween yi waaw noonu lañ koy def di ko diwoo doy na waar dégg ngeen Iran lu mu wax ñëw na si weenu jigéen tey mi ngi ñëw si li nga xamante ne mooy dama ndax nee na góor gu nga xamante ne tey jii li nga yor dafa ndaw parce soo ko jëlee ak tundukunda ak karité soo ko si defee dafay yokk loolu day na waar xati joxaan loolu day na waar de. Ah, loolu day na waar waaye c'est possible. Ira moom daal jigéen bi mooy ween bi góor gi mooy. am na sax ñu koy diw si ans. day maye ans mi noonu ñu koy diw ci ans tamit. dambal bi boo ko jëlee ak karité ak tund. dambal bi lañ koy defaree ñoom ñu la wax lan la mais lii lañ koy defaree. ba pare après nga diw ko nga am ay ans. waaw dañ koy diwoo dalay lay defar bu baax. ok day defar sa forme. waaw kay da lay defar. ah doy na waa. dambal. Uh-huh. day di ndox suti. ndox suti bi da koy daggate ba mu sew. Uh-huh. def ko si di ko naan. di ko naan. émurite da koy dindi. moom noonu ni kii bi di faje noonu loxo bii di faje mais garab bi. Mm-hmm. ñi ma koy laaj bari na mais garab bi amatul fii. boobu seen nit ñi duma la waxee ni benn garab fële la benn garab moo fa am secteur bi yëpp. benn côté kese la am. waaw benn côté bi kese waaw bari fi nag mais garab yi loolu la ñuy liggéey ay temps nag bari woon def mais léegi bareetu fi. kon daal yaakaar ne ku la dégg na wax ne garab bi si àll bi benn côté kese la am te côté bu mu am Iran moo ko xam te ku fi ñëw nga bëgg faj sa aajo boo ñëwee Iran dina la utal garab gi te dina la wax ni ñu koy fajee. waaw garab bi déggoo la wax bareetu fi. Mhm. xam nga am na ñu ma koy wutloo mais la ma dul am moo tax mais xam naa njariñam moo tax yenn saa bëgguma doon sawar saa di ko wax mhm. mais xam naa garab yi bareetul fii secteur bi bareetul fii ah, kon yaakaar naa ne dégg ngeen Iran li mu wax lépp ndax yaakaar naa ne dambal bu mu yor yu muy faj bëri na trop dina faj si jigéen ñi dina faj si góor yi suñu jógee si loolu nag nee naa leen saa su ne sama émission dund bi du ma si wéet su ma jógee si Iran dinaa jàkkaarloo ki nga xamante ni macha allah mooy sama mag jongo ma tàq ba yàq muy Xadi Joxaane tey mu ñëw indil leen li nga xamante ni mooy tuuma Xadi lan nga ñu indi tey si tuuma waaw Sarta kontaan bu baax li ma indil ci tuuma macha allah kenn ku nekk gis na tuuma ni mu lëmbee jamono ji mm-hmm. instant bi ñu nekk muy ay tuuma yu baree baree bari yu ñu yëkkati di ko teg ci ndodd doomu aadama mm-hmm. yàq image am jaxase ay njabootam mm-hmm. kenn ku ci nekk bu ñu yëkkatee tuuma teg la mu am ak mu bañ am yépp dina am lu mu def ci yow dina am lu mu def sa famille dina am lu mu def sa njaboot mhm. ndax lu yëngu la ko yëngal moo ko ëpp doole léeg-léeg gis famille jàmbur yi génn mosoo leen a gis ci ay image mais dañu génn di wax ndax lan seen deret la ñu laal mhm. may wax ne balaa ngaa yëkkateeti lenn di ko teg ci kaw doomu aadama na nga bàyyi xel ay mbokkam bàyyi xel ña jur mhm. ak ñamu jur surtout bu fekkee li ngay wax amoo ci dara lu la leer am na ñoo xam ne seen xel guddul dafa gàtt li nga leen wax wax ci doomu aadama bi rek loolu la ñuy daal di gëm loolu lañ koy jàppee loolu lañ koy xoolee. Mhm. kon bala ngeen a yëkkatati tuuma di ko teg ci ku mu mën a doon rek na ngeen uh, xool loolu ngeen koy teg leer na wala leer te sax bu leeree tuuma kenn du ko teg doomu aadama parce que da yàq lu bari. mais Khadija Khane su jógee si loolu ani maanu. waaw maandu nag jamono ji mhm. saarata mhm. dafa bareetul ndax doomu aadama yi jàpp nañ ne pour ñu am buzz dañuy weer doomu aadama te ñoom jamono ji ñu toog foofu ñu toog di weer doomu aadama yi ñu ngi toogaale li nga xamante ne bu leen yàlla uññi woon seen sutura dootuñ ko wax waxati. am na ci yoo xamante ne amul tey amul ëllëg da ngay jékki-jékki rek wax lu la neex ci deru doomu aadama mm. bàyyi woo xel ay jegeñaale bàyyi woo xel doomam bàyyi woo xel ay waajuram ak ay mbokkam. te lu jar a bàyyi xel la koo xamante ne tey defu la waxu la moom lépp lu mu mën a dund yow est ce que yow sa yoon nekk nekk boo xamante ne tey jii war nga koo lijjanti te moom lijjantiwu la lan mooy yëfu jàmbur loo xamante ne tey da nga koy jël di ko wili pande te yow tey ku wili pande woon sa yëf kon kenn tey kenn dootu ko wax te kooku ngay wili pande xëy na ni ne moo la gën téeméeri junni yoon lu tax moom muy jékki-jékki rek ani yoon tamit. waaw mais xam nga euh, nit ki nga xamante ne moom la ñu tuumaal. Mhm. dina tal leneen lu dul dem ci yoon. te itam dafa am kàddu yoo xam ne dafa ñaaw yóbbu ci yoon. dem naan kii moom moo wax lii wala moom moo def lii dafa rafetul. moo tax léeg-léeg ba àddina bi yëpp gis. pour man am na yeneen information yu gën a am solo yoo xamante ne moom la ñu war a gëstu fii ci Sénégal di ko jox doomu aadama parce que sénégalais nekk na fu nekk dëkk bu nekk la ñu nekk. te sénégalais yi nga xamante ne ndeysaan ñoo nekk ci yeneen i réew ndeysaan du ñu xool lu dul ci YouTube bi du ñu xool lu dul Sénégal ndax bëgg seen réew ñu leen di jaajëfal ndax ñoom itamit dañuy bàyyi Pexxe TV fu ñu toll di jël ay numéro di sonn di wootee di la won ne ñu ñun suñu réew rek moo ñu ñor voilà kon boo leen dee jox ay information na leen jox information bu baax bu mm-hmm. mucc ay bu am solo bu tedd moo gën nga jàpp doomu aadama bi rek xool lu la neex nga teg ko ci deram ba pare yore sa micro ak sa fu ne nga wax fa nit ñëwaat taxaw dénoncé la leeral ba mu leer wane ne loolu nga wax dara amu ci gàcce la yaakaar loolu nit war na a bañ war na ko mën a bañ booy tuumaal nit ki dafay fekk nga xam ko wala nga mais sax nit si sax boo ko xamee sax am na yoo xamante ni kenn du ko génnee ndax kooku bu dee góor wala muy jigéen tey na yàlla njaboot te nee si réseaux sociaux yi ñu nekk nii nii dara dara dara fi umpe te sa doom mën ba ba nekk mag su duggee na loo xamante ni su ko bindee gis kon yaakaar naa ne nañuy waxal nit ñu lu rafet ay xool topp doomu aadama tuumal ko ak ngóor jigéen ba mu summi ay awraam di wane ni kooku ñuy wane muy def ñaaw ñaawteef boobu ak man du ñu benn xool leen ay cëram ak samay cër xam nga yaa ngi koy puus waroon naa simmeeku non déedéet warul summeeku tuuma boobu ñu ko teg day def perturbation ci moom perturbation boobu dafay bëgg a wone ni lii ñu may jiiñ du man ndax dafa ñaaw ndax même bu amul jabar amul doom xaw ma am na jabar xaw ma amul doom mais am na ay mbokk am na ay jege jegeñaale am na ay xame xëy na xamatul nu muy def puus nañ ko ba ci miir bi yow laay déglu Sarata. nee nga dañ ko puus ba ci miir bi mu ngi génne ay arwa ay bopp waa pour mën a tu dindi weddi tuuma mhm. est-ce que moom tey jii sànq da nga indi ne émission tuuma nga ñu indil. waaw mais dañ dañu indaale sutura. Mhm. mais moom mi nga xamante ne tey mi moom la ñu tuumaal mu bëgg a setal boppam mhm. moom mu simmee ko est-ce que am na ñi nga xamante ne mi ngi yoroon seeni affaire yoo xamante ne tey mhm. ñooñu mënoon na leen suturaal mais suturaalul leen waxewuma ci aadamoo bi nga xamante ne mooy wër di weer doomu aadama yi waxewuma pour moom jëf jiñ ko def su dee moom la wala du moom parce que xaaral lépp loo gis ci àdduna rek day am jeexital aadamoo mhm. jamono bii ñu nekk xëy na jeexitalam ci jëf yi muy jëf xëy na mooy waaja a ñëw mhm. man envoyé naa ko audio man la Khady Diokhané maa la envoyé audio mhm. xamal la ni la geste bi nga def dafay wane ne liñ lay tuumaal mën na nekk yow ngay ñetteeku pour di rafetal pour di won sénégalais yi du yow dëgg la nag wane nga ay bras yu sa bopp wane yu waa ji xëy na am na ay wuute ci sama gis-gis ba ci ki nga xamante ne moo ko wane ni kii aadamoo la sax balaa muy tuumaal nit moom itam na xool li muy tuumaal nit ki est-ce que dëgg la wala du dëgg aadamoo ci jëmmi boppam moom itamit bërki dee mboo la fi tuumaal ki nga xamante ni lu baax rek lay wax muy Pape Hann teg ko fi tuuma xale bu jigéen bi nga xamante ne ku sañ la ku ñàkk kersa la ku bañ boppam la mm-hmm. taxaw ni man maa def lii man maa def lii man maa def lii man ak diw ma ngay jàpp ni diw lay weer fekk ne boppam lay xas parce que jigéen la am na nday am baay même bu amul doom xaw ma am na doom xaw ma amul doom ëllëg day juri doom incha allah ci ci li ma yaakaar ne moom la bëgg comme jigéen ñëpp bu ëllëgee boo tàppee dugg ci réseaux sociaux yi da mu wax loolu ku ne war na koo bañ. mais liñ naan tuuma plus tuumal la rek dañ ko tuumaal moom mu futteeku moom mu tuumaal oustaz Pape Hann. moom tuumaalul oustaz Pape kese. Mhm. ku ne lay tuumaal. dafay wax rek ne nag léeg-léeg mu ne li may wax lu leer la fu leer laa ko teg mais ba tey waru ko doomu aadama kenn du ko yàq doomu aadama kenn du ko weer. Mm-hmm. Iran lan nga wax si loolu si li nga xamante ne Khady Diokhané moom la indi muy tuuma. tuuma moom yàgg na si àddina moom. te du fi jëkkëram tamit. Mm-hmm. waaye def lu bon la daal. Mm-hmm. nit boo xamee ne lii de moo ko def sax. suturaal ko moo gën ngay woññi ay kiiwam mm-hmm. surtout nga jàpp doomu aadama ne moo def lii see def ko moo moo gën a bon suñu borom nee na ku suturaal nit ma suturaal la mais ku weer nit ma weer la waaw moo tax daal li ma la mën a wax bu la ko wax daal mm-hmm. sutura dafa baax bañ a teg nit tuuma moo gën nga teg ko tuuma mm-hmm. ku teg doomu aadama tuuma rek yàlla teg la tuuma. noonu lay demee. Hmm. Xadi Joxaana dégg nga li si Iran wax. waaw Iran loolu mu wax lu am la. parce que Sarata boo seetloo même kaso bee ñu nit ñi nekk sax. Mhm. nga xamante ne mooy kër yorukaay gi nga xamante ne képp koo xam ne seytaane daf laa mën ba nga def loo waru def fa lañ la war a arrêté téye la fa. ngir bu ëllëgee boo génnee dootoo ko defaat. Mhm. am na ñoo xamante ni tuuma moo leen fa dugal ñu defuñu waxuñu. tey boo ko dee seet boo demee di leen tànn du jeex du xaaj. mooy wane nit doomu aadama bala nga koy tuumaal li nga koy wax na leer. parce que yàq dundu doomu aadama ci loo xamante ni du dëgg li ngay wax leeru la te même bu dul dara. sax na ne sàngoon nañu suuf ñu suul leen te fekk ne boobu tuuma moo leen. rey kese moo leen rongé jàpp leen di leen xam nga du ñëpp ñoo am fit. Mhm. am na ñoo xamante ni tuuma safu leen. loo leen mënti teg te ñoom defuñu waxuñu seen yoon. chaque jour da ngay gis doomu aadama boo xam ne dañ ko takkal ba mu takk diw ko mais faale wu leen day romb di dem yoonam ñaari nit ñett ñu mu romb ñu ngi ci deram mais lijjanti wu leen ma nga ca la mu nekkoon démb ak bërki démb waaye am na ñoo xam ne nag boo leen ko defee day doon choc ci ñoom sonal leen du ñu lekk du ñu naan mu di leen ronge ba ñu xëy génn àdduna saarata tuumaal nit ba mu génn àdduna nga wala nga tuumaal nit ba ñu téye ko ci kaso bi mais yow mi ko tuumaal ana lan ngay yëg bu loolu amee wala loolu nga ci jublu wala lan nga ci jublu yow mi tuumaal doomu aadama ba ñu téye ko prison dóor ko 4 ans denc ko gisatul mbokkam gisatul ndayam gisatul baayam gisatul ay doomam lu dul ci jour visite rek la leen di gis amatul benn liberte mais ki def loolu bu defee loolu ba pare moom lan lay yëg ak moom est-ce que calculer na moom lii mu def te dara amu ci moom fan lay mujjee jeexital bi lan lay doon ci moom te fii àdduna la est-ce que kooku xolam jeexul. mi ngi noonu ko fi àdduna la. lépp loo xamante ni def nga ko fi doomu aadama yàlla léegi bàyyeetul ba yomal xiyaam. Mm. des fois da koy xaaj ci digg bi yenn la ko fii ci àdduna. Mm. bu alaxira mu dool la li ci des nañ leen ci bàyyi xel te ñu moytu ko bàyyi leen di tuumaal doomu aadama as gor soo xam ne deful waxul nga jël wax ju ñaaw ju bon teg ko ci deram nit ñi maandootuñu da nga leen di romb ñu di la waxal wax ju ñaaw bu keneen rombee ñu wax ko wax ju ñaaw sa doom bu rombee ñu di ko ko wax te defoo waxoo na ngeen ci bàyyi xel bala ngay waxati nit na xool bu baax li nga koy wax aduna dafa gudd tànk te ñun ñëpp dañuy génn ci kër yi dem ca pax ma te suñuy jëf ak suñuy wax lañ fay fekk muy góor di muy jigéen tuumaal daal warul góor warul jigéen yaa ngi dégg xati joxaane lu wax tuuma daal moom tuuma moom doy na waar ndax yaakaar naa suñ koy wax fii fii la ñuy fanaan du fi jeex fi jeex bu njëkk ba sax mhm. lu ëpp jigéen la ñuy wax waaye góor ñee si ëpp mhm. góor ñee si ëpp léegi oh. yow ni day rompee rek ñu ne diw lii diw lii diw lii si li ñuy wax yëpp dara wóorul leen si loolu yàgg na moom. dëkk bee toj. waaw ah, a waxee wala ñàkk maanu tamit. doomu aadama da koy natt comme ci sa bopp mbubb boo sol bu ne jàpp la bul ko solal sa moroomu doomu aadama. Mhm. lépp looy teg doomu aadama bi xoolal ba xam buñ la ko tegoon dina la neex am du la neex. te bala ngaa waxalati nit lu ñaaw xoolal sa bopp yow jëf yi ngay jëf suba ba ngoon jot est-ce que rafet na. est-ce que dagan na est-ce que baax na ko gisoon duñ la xeeb nañ ci bàyyi xel. waaw nañ si bàyyi xel nee nañ leen émission dund bi dégg ngeen tey nga xamante mooy tuumaan yaakaar naa ne ñuy seetaan pexe soo leen ko gisee boo leen ko dégloo yaakaar naa ne ñu leen di xaar commentaire yi ndax yaakaar naa ne Sénégal lañ nekk dañuy waxtaan suñu biir sottante xalaat suñu jógee si loolu nga xamante mooy Khady Diokhané si tuuma Iran mu bëgg a ñëwaat Iran keroog ku la gis suñu jàppoon Iran dama daan gis soo ñëwee di dugg si ay euh, teen wala ngay dugg si ay siyaan fat fat da ngay jàpp yeew bi mais bii paa da ngaa yàgg si biir ndox lu waral loolu. yeew bi dafa am doole. xam nga am dugg naa benn instant bi daf teg. boobu dama doon bàyyi mu lax sama tànk ba laxas ba pare. ma door ko ndax ndànk génn ko mais bu fekkee instant yi ba yeew bu laxasu bu ko jaay doole bàyyi ko seeram. est-ce boobu ëpp la woon doole. waaw am na ñuy wax naa entraîné ji parce que yow bee ëpp dafa mel ne da ngaa jeexal de Iran est-ce que doo dem doole jiwaat cere yokku ñeex. waaw bu ma jeexaloon du ma ko génne mais dama jàpp mais da nga daan gaaw dugg génne yeew bi mais da nga siy yàgg trop. kon naa la sew diis la foofu ban la boobu dugg sa tànk day pucc di pucc bi da nga koy mu génn foofu. moo tax dugaluma la fa. waa xaj joxaane loolu tey ji lan ngay wax Iran mu yokk ji doole ah ndax man. Iran dafa dugg si biir dama ko xaar ba mujj gi dama teg ne ni Iran dafa réer si biir ban bi. ah man kay Iran xanaa mu dolli ay entraînement am rek parce que yeew moom dafa am doole am doole gi nga xamante ne xëy na loo nekk nekk nekk sew léeg-léeg yeew yeew bi mën na laa ëpp doole te boobaa mën na laa gaañ. te comme que émission bi ñëpp lay seetaan xale boo wax léegi mën na la Iran Iran Iran man damay ragal sax xale yi di ñëw ci àll bi di jéem a jàpp ay yeew Iran na nga na nga waxaat xale yi parce que mën nañu ñëw ni dañuy toppandoo Iran comme instant bi ñoom ñëpp dañ laa fan moo tax faaw nga wax ak ñoom ñaaxaat leen xamal leen du rôlu xale xale warul jéem a def loolu dee leen seetaan Iran rek bu ko bëggee ngeen ñëw ci man ak yeneen ak yeneen mais il faut nga yeewaat la parce que ñoom ñëpp a lay seetaan ah xarit Joxaane lu wax am na solo lan ngay dénk xale yi ñëw si àll bi femme yomb na mais topp ndaw moo jafe femme bi yomb na waaw mais toppandoo bi mooy waaw léegi waxal waxal ak xale yi lay toppandoo non xale yi duñ ma toppandoo mënuñu te chaque jour dama leen koy wax lii temps booy laa indil parce que léegi ñoom mëntuñ ko amati àll bi fi amatul àll. dama leen di wan li fi amoon. te bu def loolu temps booy la. mais ñi nga xamante ne tamit dañuy joxe sa photo ak sama photo naan ñoom ñooy Iran est ce que duñu ñëw si àll bi jàpp yow. ñooñ ay retard lañ ma def man damaa ñuul ku ñoom xamu nuñ mel. mais sa photo lañ yóbbu ak sama photo. waaye loolu da dañoo koy yëg suñu wërsëg kenn mën ko téye bàyyi leen foofu rek. kon yaakaar naa ne suñu wërsëg kenn mënu koo téye waa gis ngeen Iran lu mu wax lépp nee naa yaakaar naa ne ñooñu di toppatoo Iran nag ñëw si biir àll bi yàpp yeew ni Iran wala ñu ñëw lekk jaxatu Iran yaa ngi jàpp jaxatu lekk rek. ñooñu ma lay wax koon bokkuñu xam nga jaxatu bi liibar la woon jekkal naa ko. xarit xaaral Iran liibaru jaxatu la lekk. man de Iran damaa jaaxle waaye nag yaakaar naa day faj jaxatu lu baax la. bépp légume lekk bu ñàkk a ñor bi bu ñorul bi yaakaar naa ne moo ëpp njëriñ dama koy faral di dégg. ngeen kon ñu naan Iran Iran man ma Iran maa Iran nañ ñëw lekk. liibaru jaxatu laa lekk. <laughs> waa gis ngeen iranien a ngeen ñëw lekk liibaru jaxatu lii lañ leen indiloon si émission dund bi si biir àll bi ma ànd si woon ki nga xamante ne mooy Iran si àll bi ku xam àll bi xam ne Iran moo ko moom ànd si sama ma xadi joxaane tamit duma ma si weet lañ indiloon émission dund bi tey ma jox Iran nga xamante ne mu tëj si émission dund bi lan ngay tëjee. sa mbokk kaamaani rek sama xarit yëpp maa la koy may di may waa tool yi. waaw jàmm ak salaam. Mhm. yàlla na ko yàlla defal may ñu wér ak wér. waaw waa diaspora bi nee nañ leen ñun du ñu dem bàyyi leen yéen doo leen dem bàyyi ñu waa senegal tamit ñun it du ñu dem bàyyi leen du ñu du doo leen dem bàyyi ñu. xarit joxaane looy tëjee waaw li may rek mooy foofu nga mujjee wax mooy waa diaspora bi macha allah dañuy bàyyi xel yal na leen yàlla defal jàmm foofu ngeen nekk sàmm leen ba ngeen dellu si yombal leen loolu nga xamante ne moom ngeen dem uti ji ak itam waa Sénégal parce que addina yëpp ñoo ñuy seetaan dañu bàyyi xel dañu woo téléphone di euh, indi seen i thème ci yeneen ak yeneen i émission fii ci biir Pexxe TV kon ñu ngi leen di gërëm bu baax macha allah waaw thème bi mooy comme li ma wax rek bàyyi leen ko xel bu baax a baax la nga jël doomu bopp ak sa njaboot yaakaar naa ne nga ne la ngi chaîne Pexxe TV ci émission dund incha allah. Mhm. waa gis ngeen li ñu indiloon si biir Pexxe TV li nga xamante mooy émission dund bi tey Khady Diokhané indi li nga xamante mooy tuuma nee tuumaal nit nañ leen ko bàyyi Iran indi leen li nga xamante ne mooy dambal ku si lu si nekk rek wax na lu muy fay émission bi nga xamante ne tey jii si fexe TV lay amee muy dund bi ku soxla Iran rek am na li nga xamante ne numéro yi jàll si suufu pexe TV boo si wootee Iran di nga ko jot keneen ku woote ku xamante ne woote woo si si si pexe TV yàq nga ko te xamante ne pexe la ak Iran kase dong maa ngi ñaan Sénégal jël bi. yéen lañ door 2-0. yàlla na deux deux zéro deux baax na. deux zéro yàlla ki yàlla may coupe coupe mosul dugg Sénégal yàlla na. waaw kontaan rek li mu wax wax na dëgg. Ah, waaw foofu lañ waroon a tëjee. parce que coupe bi moom macha allah lii ma gis xale yi di ko liggéey nii. kàttanu yàlla yàlla mën na ko. amiin ba doon laa ñaan. waaw amiin ñun tam ñu ngi koy ñaan. benn coupe mm-hmm. ñaar Sénégal. ñun ñëpp ay doomu sénégalais lañ tey jii suñu jàmbaar yi ñoo demoon pour uti ji pour indil ñu yàlla nañ ni ñu demee di uti ji pour indil ñu yàlla nañ ñu indil coupe bi ni ñuy yuuxoo fan yi yëpp ñu yuuxoo ko ah yàlla nañ ko yàlla defar yàlla nañu yàlla may ndam li yàlla may ñu ndam se si xol bu sedd guy si barke Seydina Mouhamed nee naa leen awma leneen lu ma si yokk ndax sénégalais lañ ay doomu sénégalais lañ foofu rek laa koy tëjee yàlla nañu yàlla may coupe bi Sénégal mu jig ñu si jàmm ak salaam 86 ba léegi coupe bi. 86 ba léegi maa ngi koy rêvé coupe bi. bi.